mbokk yi di leen jaajëfal ci ànd beeg Buzz Sénégal ak ci ginnaaw bi nga xam ne doxoon na si diggante kii di Adji Raby Sarr ak njiital Pastef la woon di président Ousmane Sonko bañ daal di daan ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko ñaari atu kaso ak alamaan bu moom mii di Adji Sarr boobu ba léegi nag kenn gisu ko dégg ko gis ñu ko tamit bu def benn yoon li nga xam ne moo di ay vidéo yi nga xam ne daan na ko baaxoo di amal moom mii di Adji Sarr ginnaaw loolu nag ay lu mat fukki fan yi nii yoo xam ne nii kii di Adji saar nekkul fii ci suñu réew di Sénégal maanaam daal dinañ koy rawale génne ko dëkk bi bu ñuy sukkandikoo ci le témoin mu ñu xamal ne kii di Adji Raby Sarr ma nga foofee ca diwaan bu Angleterre moom mii di aji Raby Sarr ginnaaw projet bi nga xam ne doxoon na si digganteem ak aji kii di Ousmane Sonko gis ñu ko benn yoon dégg ñu ko ndeket yoo kii di aji saar ma nga foofee ca Angleterre bu ñu sukkandikoo ci le témoin moo ñu xamal bi la xibaar kon nag moom mii di aji Raby Sarr am na lu toll ci fokki fan foofee ca Angleterre maanaam dix jours la fa daal di am moom mii nga euh, di Adji Sarr ginnaaw ba nga xam ne dem na Angleterre ak léegi bokkit leen jaajëfal ci ànd beeg Buzz Sénégal Actu leen wax ngeen wéy di abonné tey activé kon las de notification bi jërë ngeen jëf